assalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di ziyaara ñëpp di baalu xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp tamit di ñaan yàlla boole ñu baal te dolli ñu sutura àdduna ak àllaaxira ñuy fàttali rekk ñi nga xam ne abonné guñ ñu abone ndax bari na ay njëriñ yi nga xam ne nii danañ ko fi indi ñi nga xam ne abone nañ ba pare ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm te di leen yëgal ni gis nañ ñiy jàpp ci liggéey bi di partager vidéo vidéo yi ci réseaux sociaux yépp luy seen yéene ak suñu yéene mooy ñépp jot si waaye incha allah ku ci wara jot rekk dinga nga ci jot te képp ku ci jël jëriñu ci utiliser ko yàlla na ci yàlla def barke mbokk yi tey nag ñu ngi indi secret bi nga xam ne nii lu yomb la waaye lu diis la lu rëy la jafewul nag pour nga jëfandikoo ko wala nga defal ko ku ko bëgg a def inchaa allah boo dégloo nga jëfandikoo ko comme ni koy waxee dinga si gis njëriñ secret bi nag mooy néew kàttan ci góor wala impui faj impuissance sexuelle moo xam dañu la ko def moo xam dafu la dab waaye nag bu dul judduwaale rekk mën na ko saafara mais bu dee judduwaale nag mënu ci dara ak façon néewu kàttan bu mu doon rek incha allah boo ko utiliser rekk gis ci njëriñ dafay dëñ ba set wecc ñi nga koy defe nag da ngay bind basmala muy bismillahi rahmaani rahim nga bind salatu ala nabi boo mën rekk baax na man ma préféré bind allahumma salli ala sayyidina muhammadin wasallim boo paree nag nga bind fatihatul kitab muy suratul fatiha nga bind ko ñetti yoon fatiha nag mooy alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahimi maliki yawmi ddiin iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim gayri almahdubi alayhim wala ddaalin boo ko bindee ñett yoon nga bind suratu kawsara muy ina axtaynaaka al kawsara fa salli li rabbika wanxaari ina shaani'aka huwa al abtaru boo paree nag nga bind suratul kaafiruuna muy qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa axbudu maa taxbuduuna bam jeex nga bind ko ñett yoon saar bu nekk ñett yoon lay doon boo ko bindee ba pare nga bind xaatim gii ni ñu ko bindee moom kese nga koy bindee waat boo ko bindee ba noppi nag nga tëjee ko salaatu ala nabi bu la neex rek boo mën rek baax na yépp a yem incha allah boo ko tëjee nag ba pare nga def ko ci def ko saafara def ko ci ndox mu sell def ko it fu sell ni nga koy jëfandikoo yee nag mooy yow góor gi nga xam ne moom la mbir mi dal par guddi dong dong dong nga koy utiliser chaque jour bala nga tëdd nga raxas sa awra ba mu set nga jàpp ba sell nga raxasee ko awra bi boo ko ko raxasee nag nga jàng salaatu ala nabi boo mën rekk nga jàng ko fukki yoon boo ko ko raxasee ba noppi rekk ci tooyaay bi rek nga jàng ko fukki yoon nga di ko def di ko def insha allah dafay dëñ bu dee luñ la def la dafay dëñ bu dee lu la dab la dafay dëñ insha allah ñuy fàttaliwaat rekk ñi nga xam ne abonné guñ ñu abone ñi nga xam ne abone nañ nag ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ba beneen yoon asalaamu aleykum wa rahmatullah taala